waaw jërëjëf feebar bi de dafa na ci penc bi ñun ñëpp umpale wuñu ko docteur yeeg borom xam-xam yi wax nu nun koy moytoo nin koy moytoo mooy fexe ba bi ñëw ci barab bi ñu waajal ko ci masque bu ñu demee ci kër ga ñu waajal ko ci raxasu ba set jëlax ñu bàyyi ko suñu borom euh, ndax tabaski daawul mel nii aj màkk daawul mel nii bokk geeg dugg dem bi daawul mel nii kon su jamono ko defee ni ba mel ni topp jamono ci noonu mu def waa wàññiwul dara jërëjëf. ndax mën na noo xam tamit ne ëllëg euh, bu fekkente ni maanam ci wàllu aj i li nga xam ne moom moo ci am ci ab lim ci sénégalais foofu noonu am na lu mu def ci yenn ci yi nga xam ne lu ci bëri daa ko fekke waaw def na ci dara ndax ñaar fukki yoo xam ne tabaski wuñu Sénégal mu ngi ñuy fekk ca Makkatul Mukarrama kon su jotee nga xam ne wóor na la fi ña ngi koy def sa xel dana nekk foofa. waaye nag sunu borom tabaaraka taala ci mbaaxam ak yaatoom ak yaatalam ak yërmandeem ñàkk dem foofa du tee mu mën laa bindal tuyaaba ya nga fa daan am loolu rek la waaye nag danañ yëg ni daal waxtu wii daan ñu fekk ñuy yëg ak wàcc di sànni jamraaka tawaaf tawaaful ifaada ak def yu mel noonu waaw waaw. moom daal fàttali na tey bés bu baax a baax. fàttali nañu bés bu baax a baax ndax heure bii foofu la ñu daan fekk macha allah daaw a gis xar yaa ngi yëg ci montagne yi yaa ngi for ay xeer yaa ngi sànni jamra def sa tawaaf ifaada tey bis naka tey julli iid génn dem sab daal toog waaw bu ngoonee nga daal delloo euh, muna noonu lañu daan def donc biñ biñ toll ci yooyu kay sunu xel demaat nañ macha allah ba mel ni ña nga fa alhamdulilah